wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 marhaban bi wafdi Mauritania marhaban bil mabuus al xaas min faxamati rais al jumhuriya al islamia al Mauritania السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مرحبا بهذا هذه الوجوه النيرة هذا الوفد المبارك القادم من أرض المنارة والرباط min ashiqaa'ina min ahbaabina min ahli wuddi abaa'ina min xamalati liwaa il ilm wal maarifa ahbaabu cheikh alxadim wa ansaara hada alwafd mutamasil fi saaxibi saada alsayid mohamadul xataari mabuus bi suuni alqonsuliya wal mukalla wa qaa'im bil aamaal fi sifaara almuritaniya alsayid mohamad docteur mohamad aminu رئيس المركز الثقافي الموريتاني السيد فوكناس من تشريفات رئاسة الجمهورية في موريتانيا ومن معهم قدموا إليكم لتلبية لدعوة الشيخ الخديم في هذا الظرف الاستثنائي محملين إليكم رسالة سامية من صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغسواني xafidahu llah wa nasara wa xutaahum almubaraka haadihi in dallat ala cheyin innama tadallu ala umq wa matanati rabt bayna ahli cheikh alxadim wa bayna ahli shinqit lakin wa bayna qiyadat fi shinqit almutamasil fi saaxibi alfaxaama alsayid mahamadul cheikh alxazwani فهذا الوفد المبارك هم من قدموا إليكم مع ما قدموا إليه من هدايا مادية ومعنوية كما تعودوا تعودوا أن يشاركوننا في الأفراح كما تعودونا أن يشاركونا في كل شيء وإن خطاهم في هذا هذا ظرف الاستثنائي لخير دليل على ذلك فلسان حالهم يقول أن هذه الجائحة aradat an tufarriqa baynana lakin la taqdir sawfa naridu ilaykum insha allahu taala wa nashrabu min mainikum wa nabqa maakum wa naqifu maakum janban li ñoo ngi nuyu bu baax a baax ci teewaayu sunu kilifa gu baax gi Cheikh Mahmadul Bachir moom sëñ Abdul Qadir mu yor kàddu sëriñ bi yor kàddu yoonu murit boole ci it xam ngeen ne li nga xamante ni mooy màggalu Tuubaa gi nga xam ne mooy li gën a ci yoonu murit mooy ki nga xam moo ko jiite mi ngi dalal gan ñu tedd ñu jege ci xaritam surtout moom mii muy Mauritanie ci président bu Mauritanie ñu koy wax Mouhamad ibnu Ould Cheikh Al Ghazouani mooy président république islamique Mauritanie moo yebal gan ñu tedd ñi ak li leen boole lépp ne leen nañ ñëw ànd seeg ñun màggal gi wax am na ku ci wax baat bu diis sànq ci sëñ bi ne ko feebar bii de dafa jàpp na dañuy xajale waaye dafa xamut ñun niñ demee ak yéen bu xamoon de defe naa ne du am jamono ji xamut ne loolu mënuñoo tàggale muy wax ju xaw a yéem sëñ bi bi mu ko déggee loolu waaye loolu rek mooy seen tànk yi ku ne xam ne ne ñoom président bi moo leen yónni di jokkook ñoom ba nañ accès ca xam ngeen ne jamono ji ñu toll kilifa gu mag a mag ci araab yi génn àdduna muy buurub Kuwait ñoom ñëpp ña nga fa waaye teewut da leen doon nemmiku di laaj dégg ba ba niñ accès délégation bi comme ni ngeen ko xamee ki ko jiite di suñ mbokk ci di Mouhamed Khatari nekk ki yor wàllu consulat fii ci seen ambassade bi ci Dakar nekk xaayam chargé des affaires bi docteur Sidi Mouhamed Aminou moo jiite centre culturel bu Mauritanie Seyid Mouhamed Foukounaache mi nga xam ne mi ngi bokk ci protocole président bu Mauritanie ñu ñëw fii ànd seeg ñun ci màggal gi ak lu mën a xew ci xam nañ ne nee nañ jàmm rek mooy am fii ci Touba incha allahu taala ndax sëñ bi bu wootee dañ ko war a wuy si wala boog ñoom nee nañ ñi ko wërta wuy si Mauritanie boobu mu di cee bokk ak lu mën a xew comme niñ ko baaxoo defee bi ñu ñëwee dañuy wane ne rek ci màggal gi lañ bokk àndaale addi ñu baaxoo andi muy gileem yooyu ngeen gis ak yeneen addi yi comme leer nañ ko leeral nañ ko sëñ bi xam na lépp ni demee jaaral nañ ko ci moom comme niñ ko baaxoo defee comme ndigale yi ñu baaxoo amit buñ mosaa ñëw seen président ba loolu la di wax man ngeen ni dem ci Touba waaye nag di leen jaar ci buntu ba te ku ne xam na ne ba si mi mooy buntu ñëpp ci sëñ bi waaye nag Mauritanie waxi nopp ndax mooy ki nga xam ne xam ngeen liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko fa ginnaaw bi nga xamante ne ràpp na jaar nañ fa jàng ñu bari waaye ku ne xam na ne mooy kilifa ga fa njëkk ñëw mooy kilifa gi nga xamante ni xam ngeen ni mu jàppee Mauritanie tax na ba mu jàppee ko ak këram ba nga xamante ne at mu jot mu ñëw fa dekkilaat na lu bari euh, damay joxe misaal rek loo xam ne suñu sëriñ bi ñu doon jàngal fu mu toll da koy fàttali Cheikh Ba dañ daan wax ne yéen ba léegi dama ko dama koy tooñee sëñ Bachir moom day Ah, bari nañu ko mag ci yoon waaye war nañ koy ñaanal ne dekkil na loo xamante ni sëñ Tuubaa bëggoon na ko daan na ci moom laa ko gisee ne dekkil na ko daan na ñëw googu muy ñëw at mu jot de bu sañoon xilaaf ak Tuubaa ak kilifa yi fa nekk danañ xam maanaam mi mu yor mooy nañ ko daañ ko jàppale daañ ko daamu bu baax baax mooy fexe ba yokk ko fexe fexe ba it ba muy am ba faaw daan ne daal dekkil na lu bare bari nee na mën naa waat nee na toujours day wax ne it wax na ko suñu muntaxaa sax mi fi ñëw ndeysaan lu ko ñor ñor la nee na wóor na ko ne lu neex sëñ la ca na gëjoon naa am kon nag moo tax ñoom président bi bi mu ñëwee ne leen na ngeen jaaraat Serigne Bass moomu nga xam ne mooy seen cër fii ci Touba moo tax ñoom ñu ñëw fii tey doon la leeral loolu ne ñëw nañ daal ànd yow incha allah taala incha allah fas nañ yéene nekk ak bu màggal gi jàll tey ñaan yàlla it déwén yàlla yàlla delloo si jàmm ci àdduna si yëpp waaye nag bu ñëwee incha allah taala ba at màggal gi gën a neex ba benn benn yi mooy tandikoo ku si new bu déwénee du leen ci fekk incha allah la ñuy ñaan di la jottaliwaat it eh, nuyoo seen sa mbokk sa xarit na Naa Ould Neny mi nga xam ne mooy ambassadeur république islamique Mauritanie fii ci Sénégal Cheikh na sa xarit la xam nga jamono jiñ toll ci yi nga xamante ni ci la toll mi wax na ko sëñ bi nee na nan la ko wax waaye moo leen doon coordonné ba dañ accès nga dolli ko ñaan bu baax a baax a baax yàlla delloo si ko bu baax a baax ci jàmm ba ñëwaat fii kon daal loolu mooy kaddu yi أداء هذه الزيارة الكريمة رفقة السيد المدير مدير المركز الثقافي الموريتاني في دكار والسيد فكناش من من إدارة العامة لتشريعات الدولة فأشكره جزيل الشكر أيها الأخوة الأعزاء كما تعرفون فإن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بحكم معرفته بواقع أهمية التعاون الديني والثقافي وتعميقه وسعيا منه لتعميق الروابط الأخوية بين البلدين حرص كل الحرص رغم المخاطر وما يشاع حول كوفيد وإغلاق الحدود هذا لأن تمثل موريتانيا في طوبى هذه الأيام وهو العمل لفيه من المعنى الكثير فجئنا هنا ل ننقل لكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتضامنه وتزمينه للدور الذي لعبه الشيخ الخديم رضي الله عنه في هذه الربوع كما جئت لأنقل أيضا تحيات الحاضر الغائب السيد مع سعادة السفير الذي لا يخفى على أحد ما شهدته العلاقات بين الشعبين الموريتاني والدفع الذي أعطاه لهذه العلاقات والتطور المستمر الذي نعيشه اليوم فله منا جزيل الشكر ولن أطيل عليكم نحن وصلنا متأخرين بعد يوم طويل من السفر فلتعذرونا جزاكم الله خير وشكرا